waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci suñu Sénégal gii man nag je ne suis pas média ndax lu am fulla am fayda wala sama liggéey rek mooy tax ma génn ci média dafa fekk ne nag lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole sama deret moo yëngatu ndax fan yëpp coow yi bari na wax yi bari na loolu duma ci dellu man sama doom rek lay waxal parce que gis naa ne macha allah mature nga am nga fit am nga fulla am nga fayda position bi nga xam ne moom nga jël nag waal yi ànd naa ci ak yow à deux pour cent te xam naa ne sa bàyyi yépp ànd nañ ci ak yow à deux cent pour cent fu ñu ko war a waxee ak luñ ci war a dox barke alxuraanul yi man mii sa bàyyi may jiitu nga topp sama ginnaaw ñu dox ko wax ko nag jusqu'au fin fond du monde bu ko defee nit ñi bàyyi la yàbbi la nga liggéey sa liggéey comme il se doit yàlla mooy def lu ko neex fu ko neex ca ko ko neex ku yóbbu rek nangu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala